mu jàmm leen internaute BP Actu point com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, jaajëfal ati fu seeni ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru Actu Net comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk ba tax na nag tey jii dañ ko fa seeni ubbee rek ca xëtam gu njëkk gi coow bi nga xamante ni ba tey jii moo dox ci diggante militaire yi ak ñi nii di kanwu Salif Sadio Salif saajo nekk nag ba yi nekk ci diwaanu Casamance noonu yi ñu génn nag kidnappé woon nañu ñenn ci suñu takk der yi waaye négociation la ñuy amal ba ñu daal di leen di libéré donte sax amoon nañu ci jotoon a ñàkk seen bakkan jamono ji nag armée daal di uh, attaqué rek base Salif Sadio nekk ca diwaanu uh, Sindianoor Euh, foofee nag bañ fa demee ne ni leen yóbbu rek muy que ni arrêté immédiatement base yu bari yi nga xamante ni Salif Sadio mi ngi tàmbale di ko amal ci réew mi waaye tamit arrêté li nga xamante ni moom moo di seen doxalint te dëppoowul ak wàllum yoon daal di euh, wéyal suñuy euh, xibaar rek ak ba tey ci ki nga xamante ni moom moo di meeru Signe ñu koy duppee Thierno Diagne Thierno Diagne nag yoon daal na koy teg loxo li waral ñu daal di koy teg ko nag mbir moomee fësagul waaye wéetawul mooy jamono ji dossier yu baree bari lañ koy baaraamu tuuma te nee nañu ci biir dossier yooyee benn na ci d'ailleurs sax ñoo ngi ci tuddaale coow boo xamante ay milliards milliards ak lu wétu woo daal mooy meeru si ji moo ngi ca loxol yoon ñu daal di téye coowal politique la ñu daal di desandee ak yéen ba tey coowal Adji Sarr ak Sonko nag gis nañu mois de mars bi mbir mi dafa gën a takkarnaase mel ni tey jii la ndax nekk na mois ba nga xamante ni ci la lépp démarré woon mois bi nga xamante ne ci la quatorze personnes ñàkkee woon seen bakkan mois ba nga xamante ni ah, dégâts yi bari na woon lool ci région de Dakar ak li ko wër coowal Adji Sarr ak Sonko ñu ci bari wàccoon ci tali bi di jàmbarloog takk der yi ngir sauver ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko Adji Sarr bi tamit takk der yi doon ko protéger contre ah, li nga xamante ni moom moo di danger ah, bi mu nekkoon jamono ji nag ñu ci bari ñoo ngi ci yëkkatiwaat seen i kàddu di wax waaye lu waral ñëpp génnaat mooy ñaari sortie yi nga xamante ni Adji Sarr daal dina koy amal ci Jeune Afrique ak Le Monde muy révélé waat ana lan moo ko boole ak Ousmane Sonko ak naka la koy dundee jamono ji dem na sax bay regretté li waral mu daal di dénoncé Ousmane Sonko ndax gis na ni nguurum Sénégal ak li nga xamante ni moom moo di euh, justice bi ñoom ñu ñëpp dañoo àndandoo rek ragaloo Ousmane Sonko ah, te jàpp na ni àdduna du neex rek ba mu daal di am dëgg ci kawam ndax bi ñu waree àtte mbir mi une bonne fois pour tout yàgg ba moom Adji Sarr mu mën a euh, mu mën a am doom waaye jamono ji euh, àddunaam la ñu daal di hypothéqué ngir coowal suite bëti moomee Ousmane Sonko nag daal di na ci réagir pour une première fois ñu gis mu daal di juré di yëgle ni moom bu fekkante ni coow aji saar bi mu ko waxee noonu la demee mu ngi koy waat ci yàlla ni doonul woon nangu sax kenn am ci gaañu gaañu waxatuma laa kenn nag fukki nit ak ñeent ah, di ci ñàkk seen bakkan benn ex membre APR daal dinay def ab sortie bu musclé waano Seneweb moom nag moo ngi yëgle ni aji saar moo ngi en danger comme ni ko Ousmane Sonko waxee ah, d'ailleurs sax alerté na ay monkam ñu daal di koy ah, jëli ca fa mu nekk daal di koy teg seen wet nee na leen aji saar lépp loo xamante ni da koy lekk mu koy naan wala mu koy jëfandikoo rek nay jaar ci loxo ko ay mbokkam na ko ay mbokkam di ko togg di ko jox muy lekk sinon rek bu ñu moytuwul Adji Sarr dina dugg ci gudd yoo xamante ni bët setagul donte sax euh, journaliste ba fa nekk mi ngi koy euh, posé question bi di ko laaj ba xam euh, dañoo jóg ngir faagaagal Adji Sarr ngir ko coow di daal di fay yem waaye moom daal nee na li muy wax ay preuve leer nañ la ci am nee na kii nii di Adji Sarr na ay mbokkam daal di jël na mu gën a gaawee sinon rek bu moytuwul dina dugg ci ay xat-xat te famille lay dut baaraamu tuuma bu ñu nangooti Adji Sarr continuer euh, di nekk ci loxol ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy euh, protéger boobaa ak léegi euh, ba tey ci coowal Adji Sarr ak Sonko la ñuy daal di desandi ak yéen rek kii nii di Karim Xurum Xaq Karim Xurum Xaq nag nekk ak activiste boo xamante ni dootuñu ko présenté mu ko ci réew mi boobaa ak léegi nag gis nañ ni lépp loo xamante ni dafa xew rek mu njël réew mi moom day jóg daal di ci bokk ci ña nga xamante ni ñoom ñooy amal marché yi gis nañu sax mois de mars ba le passé ci coowal Adji ak Sonko bokkoon na ci ñi nga xamante ni wàccu nañ ci kaw tali bi ba ñu arrêté woon leen ci moom nag nee na ah, doonatul toog fii naan Adji Sarr ak Sonko la ñu sekk dëgg laam du dégg ndax nekk na loo xamante ni moom weesu na ko ca jëmm jamono ba ci fukki nit takk ñeent ñàkkee seeni bakkan waaye jamono jii leen rek lay firndeel mooy que nii bës bi nga xamante ni ah, jugé nañ ci Ousmane Sonko ah, ba daal di koy tëj ci kaso bi na leer na kii nii di suñu njiitum de président Macky Sall bës bés boobee du fanaan ci biir palais bi dinañ ko fa génnee dem lokkati ji Ousmane Sonko ci biir kaso bi dugal ko biir palais mu daal nekk euh, président par force par la force ndax kenn umpale wu leen euh, euh, leen ni moom moo leen mën a génne xat-xat ci réew mi yemul foofu moom Karim Xurum Xaq daal di nay ñëwaat lekk da yëgle ni taxawalee li nga xamante ni moom moo di ànd sàmm jikko yi moom Abdou Karim Xurum Xaq noonu la fa séenee taxawalee mouvement bi ñuy woowee ànd sàmm Ousmane Sonko te képp koo xamante ni taxaw nga wala jóg nga ngir jàppale ko képp koo xamante ni yaa ngi ci Pastef wala mu leele ne Ousmane Sonko mi mooy ki ñu nar a jiite ni te moom moo nar dimbali Sénégal na nga ñëw bokk ci moom ñu taxawal ko daal di koy certifié ba mbir moomee daal di wër àdduna wërngal ko la xew ca diwaanu euh, Kédougou fan yi yëpp nekk la indi tous les jours ne muy euh, kawo euh, bébé Lansana Wagué bébé na Wagué nag tolloon ci juróom-ñaari weer dong way juróom bu jigéen wàcc ko ci néeg bi muy nelaw laata mu dem boutique bi bay ñëwaat nag fekk na xale bi dem yoonam bu jigéen jigéen euh, ci la yuuxoo rek village bi yëpp daal di teew mu woo askan ba fa nekkoon ñëpp ñu continuer di ko jàppale ci li nga xamante ni moom moo di recherche ba mu demee ba gis ni caaxaan faaxee ci la daal di woo takk dere ci saa suñu daal di ubbi li nga xamante ni moom moo di enquête bi quelques jours dañ ci tekk moom bébé Lansana Wagué ñu daal di koy euh, fekk ci benn teen ñu tëmbal ko fa mu ñàtt bakkanam ba euh, yaramam commencé woon euh, di décomposé waaye nag takk der yi ka ñu njëkk teg loxo rek moom moo di wujjam bi maanaam aaw ba ndax moom da doon wujje ci biir kër gi ñaareel la moom ak aawam nag musuñu juboo dañuy dëkk ci di gis ngaas saa su nekk askan bi ñëpp di ci teg seen bët ñëpp gis nañu ñoom ñaar daal bëggante wu ñu dañuy faral di jotee saa su nekk ginnaaw ba takk der yi ba noppi ci li nga xamante ni moom moo xewoon seen biir kër dañ ko daal di mujjee yóbbu rek euh, placé ko en garde à vue waaye yemul foofee enquête ba ñoo ngi ko doon wéyal ba tax na euh, kenn ci euh, seen dëkkandoo yi nekk ami intime ci aaw boobee yoon na da ko daal di loxo tey jii mu daal di bokk ci ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu téye en garde à waaye lenn certifié wul que ni aaw ba mu moo jël gone gi daal di koy tëmbal ci biir teen bi teg ci tamit dafa amoon complice mu nekk xaritam nekk voisinam dëkk ca quartier boobee ak lu wérte wóor mooy lu ci mën ci am fii lañ leen koy fas yéene indiwaata natt iPhone ci réew mi nekk na kaa ba nga xamante ni nag doy na war lool dañuy gis ñu ci bari def ay annonce que ne lii nii di iPhone bépp marque bu mu mën ci doon ak niveau bu mu mën ci toll rek boo bokkee ci seen ay tontin dinañ leen ko teggal daal la koy jox ñu ci bari du dugal seeni xaalis di xaar Ah, bés ba jot ñu jox leen seen téléphone waaye mbir ma nag ah, ca kanamu takk der rek lay mujjee ak enquête boo xamante ni du jeex du xaaj arnaque yu bare bare mi ngi ci ah, ba tax na daal fan yii yëpp journaux yi ñoo ngi alerté eh, sénégalais ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di ko def saa su nekk di leen yëgal ni képp koo xamante ni danga nga bëgg iPhone ba dugg ci natt yooyee jàppal ni daal boo moytul ca kanamu takk der yi ngay mujjee ndax ar nag dong moom moo nekk ci ginnaaw bu fekkente ni sax jotaat nga kii ubbi natt ba amuñ sa jàmm waaye leen woo ba sonn d'ailleurs seen numéro sax dañ koy daal di coupé fay ko ba tax na askan bi nañu yeew bu baax a baax ci phénomène bu ni mel projet bu ay kon cité kon waroon koo amal ci dëkk ba ñu woowee Mbodiène boobaak léegi nag def na ay at ba ñu defee pose première pierre bi ba suñu joon yàlla tey ji amul pantere sax boo xamante ni tawax nañ ko fa askan ba fa yeewoo ñoo ko doon ñaxtu ñi nga xamante ni ñoo ko doon xaarale tamit nag ñoo ngi doon laaj ci ana lan ak nan ak naka la mbir mi nar a demee waaye fan la ay kon nekk ba suñu jon yàlla tey ji projet bi puusul euh, paasul mbir ma nag tey ji am nañ ci yeneen i leeral ginnaaw ba ñu fasalee benn article bu nekk ca diwaanu Sénégal euh, ñu naan euh, moom ay kon benn producteur bu nekk ca diwaanu États-Unis da koo daal di porter plainte ndax da koo leboon lu toll ci 4 millions de dollars yoo xamante ni dañu ko woon da koy financé ci projet bu ay concité ba suñu yoon yàlla tey ji nag producteur ba xamul fu projet ba mujj waaye tamit nag gisul un franc CFA ci nga xamante ni moom moo di alalam avocat ngir ñu daal di poursuivre kii nii di Akon en justice ndax jàpp na ni daal moom Akon da ko doon jéem a la bokkal projet boobe ak ñan ñoo koy euh, financé ci ginnaaw Akon tamit ci côté am daal di nay jël ak ab avocat ngir bokk ca jàmmarloo boobee avocat am daal di nay déclaré que ni loolu yëpp ñu yëkkati ay kaddu di ko wax ci Akon rien pour yàqal ko la ay fake news la yoo xamante ni tegwul fenn moom Akon amul lenn loo xamante ni koy Euh, projet bi baax rek looloo waral mu daal di euh, reculer ngir mieux sauter ndax dafa bëgg ba ci jubloo rek euh, daal di koy engagé ba mu jeex tàkk looloo waral mu daal di jël temps waaye Akon City boobee nekk na loo xamante ni incha allah bi moom Akon dina ko yeggale ba mat sëkk. Mimi Touré daal di nay amal ab sortie bu musclé nag di ko jëmale ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa ànd yeewi askan bi waaye tamit nag plus particulièrement ci kii nii di Ousmane Sonko mi ngi koy yëgal ni fi nga teg sa tànk du dëgg du yoon yaa ngi lëree askan bi d'ailleurs sax ñoo ngi lay xaarandi nga def discours jëmale ko ci ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo di rebelle ya nekk ca Casamance nga wax yow ana lan moo ci sa position yemul foofu mi ngi koy yëgal tamit que ni euh, lii nii di euh, salon bu Sweet Beauté te coowal Adji Sarr xewoon fa nee na ko ñun du ñoo ñoo yor li nga xamante ni moom moo di carnet ba nga daan jëlee rendez-vous donc li nga def assumé ko atte nga tekki sa masque bi nga takk ci kanamu askan wi ndax lëre bi mi ngi bëgg a yàgg askan bi ñoo ngi lay bëgg gëm ci lenn yoo xamante ni nekkul dëgg nekkul yoon la ci seen xibaaru Actunet te jaajëfal leen jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.